wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen nuyu baax baax di leen baalu ak surtout ci weeru koor gi nga xamante ñu ngi ci nekk di leen ñaanal suñu borom yàlla nañu yàlla boole ñu jéggal di ñaan yàlla mi nga xamante ne def na ci weeru koor fukki fan yu njëkk yi nga xamante ne woy na muy fukki fanu njéggal yàlla nañu jéggal fukki fan yi nga xamante ne ñu ngi ci muy fukki fanu yërmande yàlla na dotti yërmandeem ci ñun ak fukki fan yi nga xamante ne moom la ñuy dëgmal di fukki fanu gore gorees ci safara yàlla nañu ko suñu borom defal ñu ñëpp te nag ñu ñëwaat ak yéen ci seen beneen thème bu bees nga xamante ne fan yi am nañ su ñaari gan yoo xamante ne waxtaanal nañu ci waxtaanu am solo macha allah ñu ngi tegoon suñu loxo nag ci muñ nga xam ne tey soo dégloo sëñ Cheikh ak tey sëñ Mor yëpp. soo defee settantal day dugg ci loolu nga xam ne ki nga xamante ne moom mënul muñ ci li nga xamante ne bakkanam moo ko koy digal kook du muuru comme ni ko sëñ Mor waxee kon foog mu muñ li nga xamante ne neex neexi àddina la ba dëdd ko pour mën a jublu suñu borom te tamit soo dégloo sëñ Cheikh ni la ko ñëwalee ci laab te soo muñul li nga xamante ne mooy li nga xamante ne société bi ñu ngi koy def muy ay xaajatleeg seen ay muñ wax yu bari yooyu kon doo tënku bay muñ kon nag nañu xam ne ñuñ ndaw ñi dañoo war a muñ suñu kéem kàttan te bu ñu fàtte ni ay ndaw ñu ni ñuñ rek ñoo fi taxawal listaam ak diine tey suñu xoolee suñu kilifa diine yu mag yi nga xamante ne ñu fiy dugal diine ay ndaw lañu woon mais xeex nañ ko xeex bu rafet ba nga xamante ne tey fu ñu juk rek lim leen ci tey suñuy xool am na benn ndaw boo xamante ne boobu du sax jamono yonente bi sallallahu mu ngi doon dem ci ab saaxir ak ak ak sëriñ nga xam ne loolu jaraloon na ko lu ne eh, xeex ngir suñu borom jaral na ko lu ne kon ndaw li nga xamante ne yaa ngi ci yoon fexeel ba tënku ci njub te muñ neex neexu àddina ginnaaw gi nag dañuy poroxlu rek def ko porox ndool dugg ci màndargay can sant ndaxte waxoon nañu leen ni maanaam diine ñaari xaaj la mu di muñ ak sant sant nag dafa war a jaam bi saa su ne euh, sooy sant suñu borom da nga war a xam xéewal yim la defal bari na lool ndaxte moom moo la jëlee ci ñàkk amal la te niñ koy faral di waxee ci tubaab t'as rien demandé pour naître yow du yaa sàq sa bopp yaa def dara defoo benn effort pour yàlla suñu borom sàq la defoo benn effort pour yàlla indi la fi kon yow doo ci ñeex niñ koy faral di waxee man nag xam naa terme gone lay utiliser mag ñi ñuy bàyyi xel nañ ñu baal bu baax a baax koy teg ndaxte nattu nu mu metti metti ab sant la cee war a topp donte léeg-léeg mu nattaloon nu metti lool waaye soo delloo xam ne moom mooy aji sàkk ji moom mi la jëlee ci ñàkk amal la rek kon lépp ay neex ndaxte daf la indi ci kaw suuf defal la lépp may la yaay may la pàpp kon sant ko ci loolu war na defal ay xéewal ngay xéewlu bindewu ni mala bindew def la nit kon nag nit ki danga nga war a nitee ba nga xamante ne ab cant day dëkk ci da nga ciy dëkk sax ci waaye waroo nekk fii saa su di jàmbat ku sant nag moom day bàyyi jàmbat day dëkk ko sant rek te tari sóortul muñ saa su sant ko ci lépp lim li nga xamante ne xéewale na la ko surtout ndaw ndaxte dañuy faral ni la jeunesse et pétrie dafa bëri difficulté yoo xamante ne soo ci nekkee léeg nga fàtte sax yàlla ndax am na Eh, léeg-léeg nga tase ab sëriñ Cheikh nga ne sëriñ Cheikh man lan laa def yàlla kooku yaa ngi saalit te waru la kon nag nañuy sant suñu borom saa su ne di ko bàkk di ko kañ tey xam lépp moom la rek yàlla suñu borom yàlla na defal ñu njégal defal ñu xolub muñ ak xolub sant ju leen jox dig daje ëllëg ak jaamu incha allah